jeunesse féminine bu GFC gis naa force de l'ordre yi waaye yéen aussi journalistes yi ak média bi lépp lu nombreux maa ngi leen di remercier seen mbéy bu ma gisee ni nit ñi teewee fii li ma joxe dama koo xeeb donc damay jël engagement solo del tey fii ak yàlla mu ngi mën loolu ñuy mën. lii bu déwénee incha allah dinañ nañ ko am nañ yéene def cinq fois plus déwén incha allah wala boog balaa déwén buñ koy defati nag dinañ ci boole yeneen discipline yi li tax bi la. mooy dafa fekk ni lii ba ma koy jënd di ko commandé di ko def boobu nekk ku moon ministre des mu jël temps pour ñëw donc géejawaay ñun la ñu am te mënuñu def dara te tàmbalee wuñu ko géejawaay mënuñu def dara te joxuñu géejawaay cëram jot na nag ci wàllu discipline bi nga xam ne moo ñu fi boole football jot na nag géejawaay teg tànk wala boog jënd ay produits ci équipe nationale bi ak ci football Sénégal loolu nag li ñu koy may mooy ñu fexe dimbali ñi nga xamante ni les éducateurs les formateurs à la base pour jàppale leen gën a mën a liggéey pour mën a produire ay Sadio ak i ñoomin seet man de que je sois ministre des sports ou rien du tout vous pouvez toujours compter sur mon appui sur mes conseils et sur mon accompagnement. Parce que le football, c'est notre passion à tous, le sport, c'est notre passion à tous. Vous, vous aurez auprès de moi un frère, un ami, un concitoyen de Guédiawaye qui ne demande qu'à aider à appuyer le développement du sport du manière générale donc beneen yoon lépp lu mu fiy def dinañ fexe ba discipline yëpp muy basket judo karaté aikido